wala journaliste maintenant li may bëgg wax ñu revenir sur les déclarations des avocats. tu m'excuses man maa la dagg ci ci partie voilà parce que dafa am loo xamante ni dafa xaw est-ce que le parquet a le droit yoon may na ko mu requalifier wala yoon may ko mu requalifier. Hmm? yoon may na ko ko su amee des éléments nouveaux. j'ai dit donc dama ne est-ce que yoon parce que c'est kaay wax la nag c'est le juge qui requalifie mais parquet bi moo proposé. comme c'est aussi moi, non c'est le parquet moom moo requalifié tuddee corruption de la jeunesse ba mu amee ay éléments nouveau parce que ci biir tribunal bi dégg nañ fa nit ne Adji Sarr moo ma may 10 000 ba Ousmane Sonko génnee dégg nañ fa nit war a fay vingt mille francs fay cinquante 000 waaw wala déet parquet mun na ko jàppee loolu corruption la guerre la waaw wala déet lu tax mu fay plus. que li mu waroon fay lu tax mu fay vingt cinquante mille francs te waroon fay vingt mille looloo tax peut-être le parquet requalifier les faits parce que am na ay éléments nouveaux n'est-ce pas parce que man foofu foofu laa ko teg et c'est important maintenant suñ ñu jaayee c'est un problème parce que sama moo ñoo commencé ndoo politique te pratiquement moo ma dugal LDR ba may door <laughs> Abdoulaye Bathily c'est un ami nous avons partagé beaucoup de choses ensemble l'affaire Mame ñaar Niang Ousmane Sonko nga qualifié Ousmane Sonko de d'homme politique ne Mame Mbaye Niang c'est un ministre kon yoon su waree dal ci kawam par rapport à cette affaire day gën a graaw pour moom par rapport à cette décision la donc da ngay yoon jàppul ni Mame Mbaye Niang ba ñu koy attaqué ministre la woon mais dañ ko jàppoon comme un citoyen lambda c'est deux citoyens même su nekkee ñoom ñaan ñëpp ay homme politique lañ yoon moo dal ci kawam article L30 dal ci kawam metti na nag mais Mame Mbaye Niang moo amoon pour ñëw set war ne der setal deram pour wane ni moom laalul xaalisu réew mi Mame Mbaye li mu demandé dafa leer de dañ ko diffamé nit ki ko diffamé dafa laaj preuve nañ ko bàyyi mu génne preuve yi jusqu'à preuve du contraire ba sànq ba ba léegi ñuy wax preuve génnul ci tribunal ñëwuñu tribunal loo bëgg ñu qualifier loolu mooy sosal nañ ko jàpp ni dañ ko sosal yoon dal na ci kawam purement et simplement décision justice su ci amee avocat yi nee nañ complot d'état la pour permettre pour rendre inéligible Ousmane Sonko Ousmane Sonko damay rappeler sénégalais yi ci procès Mame Mbaye Niang lañ lañ ko la nekkee inéligible pour cinq ans parce que ba loo yoon dalee ci kawam article L30 dal ci kawam ñu condamné ko pour six mois avec sursis ci lañ koy rayé du de la liste électorale du fichier électoral pendant pour cinq ans loolu la loi wax. donc il est inéligible 2024 bii ñuy wax du procès bii moo tax du ci bokk de déedéet 2024 bii ñuy wax lu koy taxa a ñàkk bokk ci élection yi c'est l'article L30 par rapport au procès de diffamation entre Mame Mbaye ak moom te loolu su amee moom moo ko teg boppam parce que moo sosal nit nañu moytu di nekk ci di wax loo xamante ni peut-être dañuy dañuy duñu dañuy dugg ci xelu nit ñi li ma xam mooy yoon wax na li mu wax ci mbirum Adji a ak Ousmane Sonko parce que nag suñuy waxtaan xaayaan ku dégg séeréer ba ñuy wax fii débat bi bañ koy door ci procès bi tout le monde parlait de présumé présomption d'innocence lañ doon wax Ousmane Sonko personne ne l'a jugé pour viol fii avant l'heure parce qu'ils étaient viol présumé présomption d'innocence pour Ousmane Sonko yoon moo leeral que présomption d'innocence boobu ñu doon wax ci Ousmane Sonko am na que violé wul présomption d'innocence bi ñu doon wax ci fee yi nga wax am na mais yoon gis na leneen parce que tamit.